yéen Aziz Ndiaye mi yor ñaari jabaram yemale leen ku nekk mu dugal la ci biir kër te man li ma gën a metti mooy la majeure partie des gens qui parlent comme ça ñiy wax loolu seen jëkkër yaa ngi leen toroxal ba ñu ne tot dugaluñu leen ci kër yow Aziz Ndiaye yor ñaari jabaram ku ci nekk mu dugal la ci kër sa dépense mot sa dara manqué wul waa léegi mu xewal doomam ci jàmm ak salaam yëkkati kër gu ne muut may doomam appartement nit a ngi fi yor alal ju dul jeex ay doomam di toltolaanu mayu leen saafaraawu Mali boo leen gisee di leen yërëm te ñu yor lu ne muut di tabax di luwe di tabax di teg defaluñu seen doom yi dara yéen Aziz Ndiaye mii nga xam ne mettre na de mettre na bonne condition à ses enfants jël ñaari jabaram mettre leen dans les bonnes conditions dara manqué wu leen ah yéen ngeen ne mariage ba ah ku nekk daal ubbi saw làmmeñ bu rëy daal yor sa martu daal nararu ko kër ga naan waaw Aziz ay sa ay sa ak miss njig nga kay moom miss moom miss moom daan na ko moom ndax xoolinu miss ba regardu miss ba ak la miss sañse miss ba muy dox miss kay moom boo ko gisee yéen yéen a saytaane fi mister nag ay waay Sénégal ñu ne nii lañ leen di bàyyi bàyyi leen saytaane ak fi bàyyi leen dugg kër jàmbur di ruutaale nar a tas kër ga dugg kër jàmbur di jaxase ngeen mën ki xewal doomam ci xew jàmm ak salaam yéen ngeen na ñëw daal nararu kër ga ba mu mook fan ngeen ko teg yow tata om soso yow dama laaru sama xarit nga bul dugg ci gaam boobu dinaan ay sa rasuul ak miis ñi ngi déedéet àndumaak yow tata om soso yow nee nga jéeg nga doo jeket comme jéeg nga nag toogal sa place su jéeg rek jàpp sañ jàmbur waaye naan ay ay sa rasul dafa dugg fii dafa génn fii ay sa rasul xale bu am personalité ak dignité la xale bu am respect am éducation de base la bañ ko takkee ba léegi kenn gisul mu débordé ay sinapam lay def mais xale la xale yi ñooy sinap di da ngeen fee gis mag muy sinap màgget guy sinap da ngeen ko fee gis xale la toll ci jamonoom war kaa dox sinap la toll lool muy sinap bëgg jëkkëram nag ba mu jeex ay waajuram jox ko éducation de base met ko dans les bonnes conditions mu gis góor gu baax farantuwul sëy ak moom góor ga jël ko aj ko ba ca kaw dugal ko ci kër mettre ko dans les bonnes conditions jéeg ak ngi fii di sëy ñiy wax ñépp boo demee ne amuñu jëkkër benn wala bu ñu amee jëkkër seen jëkkër yi mettu leen dans les bonnes conditions bàyyi leen saytaaneeg fi mistek ràmbaaj te ngeen bàyyi jéeg ji ñu say seen sëy bàyyi leen jéeg ji ñu say seen sëy nag bàyyi leen dugg kër jàmbur di jaxase jéeg ja nii ngeen di def nag nit génn gis boppam ah di xuloog wu jëm mbaa ñuy sot sottante asib ngeen toog fa ngeen toog di kontaan di ree Aïcha nag moom xam naa ne moom am na éducation de base ndax am na waajur yu baax ndax yaayam ja dakaat jox éducation de base moo am éducation de base bàyyi leen di jaxase ay nit bàyyi leen soxor bàyyi leen iñaan Sénégal bàyyi leen soxor ak iñaan ak di yokk joote ku ne yaa ngi yor sa njooma sàll mu ne ñu mu nga war caa wax waxoo ko yow Aziz Ndiaye mi maa ngi gis sax ay nit ñu génn naan waaw Aziz Ndiaye kay moom am na magam buy jaay sax ndugg lu tax dimbaliwu ko ku ci nekk yaa ngi famille boo xamante ne ni am na ku ci am ba mu jeex mu am koo xamante ne moo ca gën a pauvre te dimbali ko yu loolu yàgg na ci famille lu ci seen yoon yaa xayti mu laana bàyyi leen jaxase bi bàyyi leen taale bi man sax man dama mu sa gis man te man Sénégal la gën a ñàkk fayda ci àddina waa Europe ña nekk ba Europe ñooy ñëw di régler problème mu Sénégal fan ngeen kate du ngeen ñu bàyyeeg problème bi ñun ñu régler ko ñun ñu dëkk Sénégal waaye yow mun ngaa dëkk booro bëgg a régler ñu nekk senegal loolu daa mën a nekk ah eh saytaane baaxul fumiste baaxul rambaaj baaxul bàyyi leen seen yi ngeen nekkee bu dara xewee ngeen génn ca di polémique di wax waxu saytaane jaxase di wax waxu fumiste ak bàyyi leen loolu baaxul nee naa la xew Aziz Ndiaye bii man gis naa ci loo xamante ne nii neex na ma xam nga muy lan gis nga njoletaal xam nga am na géwél yoo xam ne dañoo saytaane fi mister rambaaj mais Ndiolé Tall nit ku baax la ku am personnalité ku mun a liggéey la ndax ba mu ñëwee daa jël ay sa ñi nga ne ko jugal nga foon sa mag miis jubale leen boole leen woy leen ñoom ñaar ñëpp waa léegi yaa xayti mu laa naa luy problème bi ah du ngeen bàyyi ñaar ñi ñu sëy ñaan ñuy sëy nag dégg naa ñaan ñuy sëy sëy ngeen fan ngeen ka du ngeen ñu bàyyeeg problème bi ñun ñu régler ko ñun ñu dëkk Sénégal waaye yow mun ngaa dëkk booro bëgg a régler ñu nekk senegal loolu daa mën a nekk ah eh saytaane baaxul fumiste baaxul rambaaj baaxul bàyyi leen seen yi ngeen nekkee bu dara xewee ngeen génn ca di polémique di wax waxu saytaane jaxase di wax waxu fumiste ak bàyyi leen loolu baaxul nee naa la xewu Aziz Ndiaye bii man gis naa ci loo xamante ne nii neex na ma xam nga muy lan gis nga njoletaal xam nga am na géwél yoo xam ne dañoo saytaane fi mister rambaaj mais Ndiolé taal nit ku baax la ku am personnalité ku mun a liggéey la ndax ba mu ñëwee daa jël ay sa ñi nga ne ko jugal nga foon sa mag miis jubale leen boole leen woy leen ñoom ñaar ñëpp waa léegi yaaxayti mu laa luy paroblème bi ah du ngeen bàyyi ñaar ñi ñu sëy ñaar ñuy sëy nag dégg naa ñaar ñuy sëy sëy ngeen di bañ a gis buggu leen ko am bonheur ku am bonheur am ngeen da ngeen fay dugg di ko yàq gis nga nag ay sa ñingi moom xam naa ne moom na personnalité ak ndax am na éducation de base te nit boo amee éducation de base am na wax yoo xamante ne doo génn di ko tontu ndax am na ay nit ñoo xamante ne nii boo génnee tontu leen rek sa personalité ngay wàccee te xam naa ne moom du génn di tontu kenn te Miss Ndiaye fees na dell palaasam fees dell palaasam goo xamante ne kenn musukaa dégg ci yu ñàkk fayda ba du tey lañu koy dégg ci yu ñàkk fayda Miss yow laay wax yow ay mag boolool ak sa rakk ngeen doon benn ndax mooy jàmmi Aziz Ndiaye te sala wërsëgam di yokkoo gis nga nag nit ñi bu ngeen leen dégloo dingeen ngeen jaxasoo ndax bugguñu ko am jàmm bugguñu kuy dem bugguñu ko ak kuy belli di nay bugguñu koo xamante ne ni yow saa yu nekk yaa ngi garder sa suur yi yow daal nañ lay gis nan la ndeysaan ay waay moom nday saan nday saan ndekete moom de nangam ak nangam bu ñu gis ci yéen benn affaire ñàkk fayda bu ñuy wax ci yéen am leen fulaak fayda goo xamante ne bu kenn gis ci yéen lu ñuy wax ci yéen ndax ay sa ñing ba ma ko gisee ca mariage ba complicité bi nga xamante ne moom la am ak doomu Aziz Ndiaye loolu loolu suma koo gis ci àddina am na complicité ak xale bi doon marié wu am complicité ak doomu Miss Ndiaye yi bàyyi leen jaxase Sénégal africain yi saytaane ngeen pimister rambaaj mën a jaxase bàyyi leen di jaxase ak di ruutaale e ala kama sala naaxira atoy sa sabali bref nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci combat jëkkëru Ndeye Gueye papa booy jinne waaye léegi ñu koy woowee majji majji man sax xaw ma woon na tur bi noonu la changé majji majji lañ koy woowee léegi gis nga eh, yàlla mooy maye te yenn saa yàlla xañ la loo xamante ne nii day doon la gën ca yow ndéygee yow laay wax nag am nga personnalité am nga dignité fees nga sa place te yaa ngi sëy sa sëy gis nga ñi nekk ci internet bi di wax bu ci tontu kenn bul xooli commentaire bul tontu kenn jàppal sa jëkkër sëy sa sëy jàpp sa njàmbur ndax nit ñi nag boo leen dégloo da ngay dégg boo leen bàyyee xel sab xol du neex ngay liiri commentaire sa xol di naqari te yow ku ci nekk xam na ne papa boy ji danga koo bëgg ba mu jeex papa danga koo bëgg bëggantu woo ko ku nekk nag yaa ngi génnee sa version naan waaw maire bi mu seyal moo tax mënatul am ndam dugg na fii génn na fi waaye yow yaa xayti mu laa naa koy maye ndam ku dul yàlla nag wala yéen ndam ci yéen la nekk kon kay bu dee ndam ci yéen la nekk yéen yéen a xañ papa euh, ndam li kon yéen a xañ papa ndam li bàyyi leen di fakastal nit ak di ko faagaagal bàyyi leen Ndeye Gueye yaay fàll mu sëy sëyam sokkorloo ni a asamaan ak suuf ah, papa booy jinne am ci njaboot gu barke nag loolu lañ koy ñaanal sénégalais yi bàyyi leen saytaaneeg fi miste pour yéen ñi ngeen xam ne nag maa ngi doon def samay vidéo di ko lancé ci tiktok bi di wax naan ay ñi may liggéey ak def lii ak ñiy def laa man su may wax man waxaluma sama bopp man xam nga ne man man yaaxeeti mu naa man ku may liggéey man kan mooy xool sama jëmm ji man ak ni ma mel nga di ma liggéey man kenn ñemewu ma ba dima liggéey mais ñi nga xamante ne dañuy yeewu suba ba ngoon di dem ci sëriñ di liggéey ay nit man ñooñ laay waxal waaye man alhamdulilahi rabil alamina je remercie bon Dieu man maa ngi sant yàlla kenn liggéeyu ma ndax man ku ma xool rek sama jëm man doo ma ñeme ba dima liggéey te boo ma liggéeyee sax du jàpp mais ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yóbbu ci sëriñ di leen liggéey man ñooñ laay waxal ñooñu laay jooyal seen mettit ñooñu laay waxal li nga xamante ne mënuñu ko wax man ñooñu laay waxal mais man kenn defuma dara aw ma benn problème nit man déjà man rek man man maa ngi baax maa ngi belli di naa yi maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla yàlla ngi may suturaal alhamdulilah faramaareen laa bokk ci njabootu maar yaasin may sa biige maar yaasin maar waa man mii lu ma war a metti ci àddina ku bokk ci njabootu maar yaasin may sa biige doon faramaareen doon faramaareen yombul doon faramaareen yombul ndax maa ngi gis yaa awa sol sax léegi ñëw na ci ñun yaa awa rasool ma di ko félicité ndax gis naa xam nga waali waali day commencé fi mu nekk nii pour dem euh, almadi commencé di jouer bu yóbboo nag euh, ña nekk almadi ñëpp nañu préparé ndax euh, gaynde gaa ngi ñëwaat de gaynde gi gaynde gaa ngi ñëwaat almadi préparé leen yéen yëpp yaa awa rasul gis naa ko muy def vidéo ci waali ak Jojo om Jojo bu yóbboo nag euh, ña nekk almadi ñëpp nañu préparé ndax euh, gaynde gaa ngi ñëwaat de gaynde gi gaynde gaa ngi ñëwaat almadi préparé leen yéen yëpp yaa awa rasul gis naa ko muy def vidéo ci waali ak euh, Joso Omzozo moomu ah nga xam ne dafa yàgg ak waali moom ku ko xam waali nga ko xame moom faramaaren la yàgg a nekk waaye nee naa la ak kan sama law bi maa law bi tike law bi mi nga xamante ne temps yi mooy toj dëkk bi ci ay théâtre am ay challenge feccam ak baaxam yaatoom waaye tike fi nga nekk baax na yaa ngi belli di naayi macha allah sama xaali xiina yal na la yàlla la fal cat nga yokk ba yëg ko ndax man ku bokk ci man ku bokk ci man bokk ci faramaaren gi man dama lay bégee te yow dangaa bokk ci faramaareen gi léegi yow ak yaa awa rasul yéen ñëpp ñëw ngeen ci faramaareen gi loolu baax na nee naa la nit booy dem ba xamatoo fa nga jëm yaa awa da ngay delluwaat daa di xoolaat say mbir boo xoolaatee say mbir nga daa di xam kër ga gën a neex ga gën a baax ga ëpp a jàmm nga ëpp personnalité ak dignité waaye kër ga nga xamante ne ay eh, waxi mbojo mbojoog noo ceeñ sa amu fa nga daal di fay ñëw kon yaa war a suul ñun ñëpp faramaaren yëpp ñu ngi lay wax soyez les bienvenus ndax gis naa met sop moom nga xamante ne moo nekk ci waali ñëw fa ñëw bu xeere wax ak yéen ci almadiga waali nar a ñëwaat narkaa rukkaat ba mu eh, moo ko rek ah ngeen daal di koy tontu ne ko ñun ñëpp ñu ngi ñëw kon yaa war suul ñun faramaaren yëpp ñu ngi lay wax soyez les bienvenus ñëwaatal ci jàmm boo ñëwee dangaa war a ñëw boo ñëwul dangaa war a ñëw ñëw te ñëwoo ci faramaareen yi fa nga ñëw fa nga dem baaxul kon yaa awa rasul wax dëgg fa yàlla man moom dama laa yàgg bëgg léegi nag ñëw nga ci faramaareen yi ma gënati laa bëgg sama mbëggeel ci yow daal di gën a yokku bëgg naa la bëgg gu xeere waaye tike lawbe moomu sama lawbe maa lawbe yow it bëgg naa la bëgg gu xeere yéen ñëpp ñëw leen ci faramaareen yi nee naa la àddina bi yëpp Sénégal yëpp li muy rëy rëy rëpp ñëpp ci euh, faramaaren ya rek la ñuy mujjee ji ba ci ñoom maam Ndiaye Savon yi ñooñu ñëpp dañuy daal di rek ndax waali moom ginnaawam a yaatu nee naa la moom géej mbambulaan la waali waali yu la turam dakaa wone day walwali di ñëw waaye ku ñëwi doo ko reccu ndax boo ñëwee di nga fa gis personnalité ak dignité di nga fa gis xoola borom éducation de base di nga fa gis jàmm ak salaam te doo fa gis lenn lu la metti ndax ñun duñu wax waxu noo cens ñun dañoo am classe am maanaa dégg daaj dégg daali démb daali tey daali masaaya waaye lu ñu wax rek ñun daal alhamdulilah ñu ngi sant daal ku ñëw ci mariasin dinañ la yaatal ñun fara maareen yi sama vidéo xoola bere fa yaa xayti mulaana waru ko woon a am a doy na waar